oui kontaan nañu kontaan nañu si si victoire bi euh, comme ni ngeen ko waxee rek euh, premier match bi jël nañu défaite je pense que défaite la bo xamné ça ça ça a fait mal parce que mérité wuñu ko je pense euh, on a fait le match jusqu'à la 85e le le match possible et derrière ñu jël def ñaari erreur yo xamné lool mo ñu lool ñu coûté cher et nag voilà comme ni mako ni mako ko waxee rek le mot d'ordre mon nekkoon pour ñu jéem a le euh, match bi voilà préparer final bu ñuy de le troisième match. est-ce que Sadio manqué wu leen. mais ça c'est très normal que nous manquions c'est c'est c'est notre leader technique il faut pas que nous aussi ñu fàtte loolu mais voilà il y a dogal mode euh, nekku fii il va falloir que nous aussi euh, ñu ñu ñu def le travail parce que. Euh, dina ko doon ne trop mu nekk fii euh, ñun aussi dinañ euh, dinañ doon ne aussi mu nekk fii parce que bu fi nekkee aussi on sent que voilà il nous apporte beaucoup plus tey yàlla dafa dogal nekku fii maintenant il faut ñun ñun aussi ñu ñu continuer di di def liggéey bi réaction sénégalais franchement franchement man bon man du ma déglu du ma du ma du ma déglu franchement réseau yi wala ñu ko ñi ñi c'est sûr que dès que le xam ne voilà tay ñu ngi ci si ginnaaw équipe bi tay bu équipe bi perte ñen ñi dinañu dinañu am déception ñen ñi dinañu voilà ñu am football deug dinañu xam ni euh, on a fait ce qu'il fallait et comme nous ma ko waxee rek dernier moment lañu la perte match bi bon critique yi moom xam nga ma <laughs> xam nga ni du du du dañ mais voilà c'est c'est normal aussi daf ñuy gën rek ñu gëna continuer di di liggéey quoi